fanam wéral ay cëram ba mu anduk naal jaboduk sering ko ak dinyanul Serigne Touba gep di ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké khalifa Cheikh Mouhamadul amin bara yalla yagal ko fi sering te mu gip. gër ak mbolem njabootu Serigne bara Mbacké gep jotaay bi nak moy niñu ko baxé defee rek waxtu ne at mu ne bu nu accé ci bis bi Serigne basirou Mbacké mi nga xamné dafa am aada waxtu nu ci bis bi mu ñëw woo njabootu Serigne Bara Mbacké gépp kër gu nekk mu woofa kenn ñu gunge ko mu ñëw indil addiya daayira bi nga xam ne moom lañ wax Muxaddamatul ma ñu nekk ci liggéey boo xam ne nii moom ak i moromam ñoo fi waroon a toog di ko def bi ñu ci amee ngant daayira bi wuutal leen fi kon dafa warloo ak ñoom muy lu yell waxtu wu ne bis bi tey la séentu bu njëkk mu ànd ak ñi mu bokk Serigne Bara Mbacké ñëw teew si loolu mooy solal bis bi kër gu nekk ci kër sëñ Bara woo na kenn ñi nga xam ne yàlla dogal na jàmp ñu ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ko moom gunge ko kon ci ndigalul Serigne Bassirou Mbacké mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi ñi ngi sant bu baax a baax daayira mu xaddimatul xidma di ci jital jëm ju tedd ci nga xamne mo nek ci bop di serigne Afi Bousso di taxaway taxaway bu rafet ci jumaaji and ko ñi nga xamne ñom la bokal muqaddimatul khidma muy jëm ju tedd ju bax jo xamne ni xawma amna am kër wala amul kër waye kep ku ko soxla mom ci biir jumaaji nga koy fekk kon melne ne yitem jep moy liggey bi nga xamne da koy liggeyal Serigne Touba kuy ñew ci nga fekk kuy dem ci nga ko ci baye kon nuyoo bi nga xam ne Serigne Bassirou mi ngi koy nuyu daayira Moukhaddamatoul Khidma mi ngi koy jaare ci jëmm ju tedd ji Serigne Afi Bousso di di nuyu mbooloo mi ñëpp di leen sant ci seen taxawaay ak seen Pastef ak taxawaay bu rafet bii nga xam ne am nañ aada di ko def at mu jot bu weeru koor ñëwee muy taxawaay boo xam ne benn taxawaay gënu ko am solo ci lislaam benn taxawaay gënu koo am solo ci yoonu murit kon ñoom suñ ci wuutee njabootu Serigne Touba di leen ko defal sëriñ Basiiru dana jekk waxtu wu ne bu ñu see fii mu ànd ak ay bokkam ñëw sargal leen ndokkee leen ci seen taxawaay ak seen liggéey jël addiya ji nga xam ne bu fi Cheikh Mouhamadul Amine Baara Mbacke mu nekkoon moom la koy jox waaye day mel ne addiya ji da koo jox Cheikh Mouhamadul Amine Baara Mbacke dikk ko joxal sayxul xadim teg ko ci lexol muxaddimatul xidma loolu rek mooy jataay bi mooy solo si kon ñi ngi dellu di sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi nu mayoon ñu teew daaw may ñu ñu teewaat fi di ko ñaan yàlla na nu may ñu teewaat fi diwén ak at yu bare bare wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah mbokk yi ñu ngi amaan mbégte ak kontante ñëwaat ci bis bu tedd mag mujj bi nga xam ne moo mujj ci weeru koor ñu ñëw fii ci jumaay Touba muy jumaa ju mag ji fekk si waa daayira mu xaddamatu xidma bi nga xamee ne ñoom la sëriñ Saalix Mbakke radiyallaahu anhu dénkoon jumaa ji ak xorom bi ak li lépp waaye sëriñ alxaaji baara yàlla ko yàlla doon leer ñëwaat feddali ko sëriñ Sidi Maxtaar Mbakke yàlla ko yàlla doon leer feddali ko ba Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam tey moo fi nekk tey gën fedd feddali liggéey bi nga xam ne waa daayira mu xadma xidma ñu koy liggéeyal sëriñ Touba fii ci jumaam ju mag ji ak li ko wër lépp ak ba ci ya waaye yemuñu ci liggéey boobu nag ñu def ci innovation bu bu rëy bu am solo boo xam ne sëriñ Touba loolu rek moo taxoon mu doon sonn mooy al ibaadu wal xidma mooy ji jaamu yàlla ak liggéeyal servir doomu yi Eh, ñu def ñom chaque année wéru koor bu joté ñu fas yéenoo eh, dogal ay junni junni doom adam ci bir dekk bu sell bi di Touba lolu ñu tàmbali ko at yu bare bare bare yo xam ne yaakaar naa ku dekk Touba wala nga gis image yi yaa ci tek sa beut chaque buñ da nañ fi joxé ay xéewal yu yato yato yaatu yoo ay julit ay mbokki talibé ñoo leen ci jappalé ñukoy def defin wo xam defin wu sell ayib la muy participer ci social bi participer ci solidarité bi nga moom la yàlla waxoon ci alxuraan wa ta'awanu alal birri wa loolu mu nekk lu am solo loo xam ne seen njiit sëñ bu Bousso mi nga xam ne moo toog nga xam mooy seen mooy mooy njiitul daayira Muxaddamatul ma moo nekk ci bopp bi ànd ceeg mboolem mbokki waa Touba yëpp nga xam daayira Muxaddamatul Xidma léegi léegi ñëpp ci nekk képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci dëkk bu sell bi euh, am yéene liggéey sëñ Touba ñoom ubbil nañ seen bunt nga bokk ci ci ndimbal yooyu nga xam ñu ngi koy def wala dog yooyu ñu ngi koy def nag euh, ay mbokk di ci jàppale ñoo xam ne ñooñu tamit dañoo gis ne lu baax dañ ko war a njëkkante la suñu borom waxoon ci alxuraan saari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha a wal ardu uiddat lil muttaqina yàlla ne gaaw leen ngeen njëkkante dem wuti njëggalu suñu borom subhanahu wa taala njëggal loo xam moo a yaatu suuf yàlla daan ne xay leen ma la ñi nga xam ne ñooy njëkkante lu mel noonu yàlla ne alladina yunfiquna fi sarra'i wa darra'i yàlla ne ñay njëkkante maanaam njëggal loolu nga xam moo gën a yaatu asamaan suuf mooy ñi nga xam ne dañuy génn seen alal Euh, diko ko dépense ci neub ak kilo feñ ñoñu nak nag euh, Bassirou Mbacke Xaadim Awa mi nga xamne tay tey bisu mujj bi mom la ko euh, wa daayira Muxaddama khidma diko ko jagleel aayowoo la teg bëtam moy mooy njëkkante leen ci ñeegal suñu borom suñu borom subhanahu wa taala ñeegal loolu nak suñu borom neena moy ñi genn seen alal diko ko joxe ñi genn seen alal diko ko joxe ci yoonu yalla subhanahu wa taala te genn jox genn sa alal jox ko ci yoonu yalla subhanahu wa taala amna na solo lool rawat na nga def ko ci bërëb bo xam ne am nañ fa yaakar ju rëy rëy rëy bërëb bo xam ka ko sanc muy Cheikh ma Serigne Touba si Amadou Bamba Xaadim Rasul ñaan na fi ñaan goo xam ne waxoon na sunu borom subhanahu wa taala kullu man xadama ne aw maala ilay farzuq hudan aw maala mu ne sunu borom subhanahu wa taala képp koo xam ne jéng na da wut ma di ma liggéeyal sunu borom maa lay ñaan yàlla na ko may alal loolu la Serigne wax yàlla na ko may alal ak njub kon Serigne Bass tamit Xaadim Awa foofu la teg bëtam ci aay wa sunu borom subhanahu wa taala wax waaye ci hadis yoon sallallahu alayhi wa wax ne de leen dépenser sen sen ala diko di jox ci yalla subhanahu wa taala waye seigne touba soñné bo mu soñné ne képp ko do wuti wala nga jeng da wuti ma ngir genn sa ala ligéel ma yalla yalla ko may ak njub ak alal ñett yoy ci la tek gëtëm ba tax na mu ne mbir mi kenn du ko jitu ay at a ngi nii allah tabarakallah yëmut ci wax dëgg yalla ñun ñoko ko te nañu séré ci mom yëmut ci limuy dind rek di ko ci ala lu bopam waye mi ngi xol képp kum gis ne eh, talib seigne touba wala nga ab jullil nga rek te am nga yéene def lu baax dala la jéem a pour andi la ci bërepp bi nga sa ñak def ci ba ci mën nañu tudd ku mel ne euh, xaritam soppeem sëriñ Abdoulaye Dia euh, bu Sénico di def mu musaab mooy euh, concours alxuraan boobu gis ngeen ren wax dëgg yàlla indi na ay ndimbal yu am solo yoo xam ne mu ngi ko jaaral ci xaritam sëñ sëñ Bassirou Mbacké Khady Awa ni ma ko waxee pour mu indi ko ci jumaay ne lu waaye di mën indi rek yaakaar a yàlla fii la gën a yey ndax borom da ko sañ ci ndigal suñu borom subhaanahu wa taala waaye ñaan fi ñaan goo xam ne ñëpp xam nañ nangu na ko kon lu waaye di dimbalee rek nga di ko joxe pour ñu jox ko jaami yàlla yaakaar nañ ne ba barab yi bokk na ci barab yi ko gën a yell ba tax na kon suñ bas euh, mi ngi sant bu baax a baax a baax a baax moom day sant xëy na sax waa daayira Mbirul Xadim ñoom dañuy jàpp na ñoo koy sant waaye moom moo leen sant ndax ñoo ko ubbil buntu joxe ñoo ko buntu yoon woo xam ne euh, ku ca jaar rek joxe day mel ne jox nga ko directement Serigne Touba te ku jox directement Serigne Touba jox nga yenn sens jox ko àgg na ci yàlla subhanahu wa kon moom jàpp na ne yéen moo leen war a sant moo leen war a gërëm ndax li muy def nii man amila saalihan fali nafsi li muy def boppam la koy defal da koy da koy da sotti ko ci misaanu xasanaat yi nga xam ne moom la yontu sens wax ne ëllëg yomal xam ku fees di yaa ëpp la ñëpp kon moom jàpp ne moo war a sant bu baax a baax baax kon nee na mi ngi ñaan yàlla suma suma taala suñu affaire mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi yàlla ko yàlla yàggal waaye ñi nga xam ne rakkam yi mu àndal ak mbokki jullit yi mu àndal yëpp yàlla na yàlla yàlla na yàlla gën a taxaw gën leen ndax ñoom ay jàmbar la daayira Muxaddam Xidma damay wax ne waxuma la jumaay Tuubaa kese waaye dëkk Tuubaa bi jàpp nañ ne buñ ko tegoo seen loxo insha allah rabbi léppay rafetu ndax am nañ yéen am nañ pas-pas bi ndax ñoo xam ne ay njabootu Sëñ Tuubaa euh, jàng xam bu wér wér wér nan la ñu war a saytoo jumaay tubaa ji jàpp nañ ne dëkk bi sax bu ñu leen ko joxoon bu soob yàlla des na ko defar waaye Sëñ Tuubaa mooy séddale noonu ndax yi mbokk yi suñu borom nga xam ne euh, amul njariñ ba pare ba pare bari jafe-jafe waxu kallun ala mawla kooku sax yàlla su ma da koo jëpp <laughs> kallun ala mawla yàlla da koo jëpp kon suñu borom subhanahu daa bëgg nit ku am njariñ ah, nit ku am njariñ nag ah, da ngay amal njariñ mbokk yi amal njariñ say mbokk amal njariñ ñi ñu ma tuddee doomu aadama yi te loolu sax yonent sansam daana ci soññee daana wax ne ah, ki gën ci yéen mooy gën ci njabootu yàlla suma subhanahu taala kon daal suñ suñu affaire duñ guddal suñ bas nee mi ngi leen sant bu baax di ma ko waxee léegi ndax yéen a ko yombalal aw yoon waaw nee na daayira Muxaddamatul Xidma amul seen fay ndax gis ngeen gis ngeen ne li ngeen koy defal lépp ngir ngir yéene ko yiw la fi doon yéen jàpp ngeen ne lu ngeen gis rek loo xam ne xëy na xaw naa jafe jàkk ji ngeen ana sëñ bas loolu nee moom da leen sant yéen lay sant bu baax a baax a baax ndax ma euh, ku def aw yiw rek euh, maanaam am nga ci aw yiw waaye ku ca jaaraat jariñoo ca yiw woowu de fekk sëñ bas fa mu nekk kon ba tax ne nee na mi ngi leen sant bu baax waaye di wax ngeen ñaanal tamit xaritam soppeem sëñ Abdoulaye Dia Seniko nga xam ne moom it euh, genn wàllam la muy taalibi Sëriñ Tuubaa nga xam ne xam ngeen bu baax a baax eh, maanaam eh, ndimbal yi nga xam ne jaara na ci loxo loxoom ñëw ci Sëriñ Bass ba dugg ci biir jumaa ji nee na lépp taalibi Sëriñ Tuubaa la war ko defal Sëriñ Tuubaa ci jumaa ji kon nee na moom tam mi ngi leen sant baax di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla nañ ko teew at bare bare bari yàlla guddal seen fan yokku leen ba li ngeen bëgg a liggéey Sëriñ Tuubaa ci dëkk yàlla may leen ko barke Sëriñ euh, ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem kilifa yu baax yi nga àndal suñuy tuddee sëriñ Abdoul Aziz Ahmed mi ak sëriñ Modou Bara Abdoul Khadim ak sëriñ Maam Cheikh Sarak mi doon wax léegi ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gi nga àndal ak euh, bokki taalibe yi ni ko sëriñ Maam Cheikh waxee léegi euh, sa jikko moom mel noonu moo tax wax dëgg yàlla ñëpp la xajoo moo moom sëñ Bass ñëpp ñëpp la jaxasoo ci génération bu nekk nag loolu la ko yàlla bindee man mii di wax xam naa ci dara ngir nii ñuy demee moom noonu lañ demee euh, kaddu yi nga xam ne nag moom la ñuy ubbil sëriñ Afia dañuy def benn témoignage ndax sëriñ bi ñun lay yónni ñu dox diggante moom ak moom maanaam man ak Sëriñ Abdou Lahad ñoom ak ñi nga xam ne ñoo ko gën a nekk ci terrain bi waaye yitte joo xam ne euh, Sëriñ Afia mi ak daayira bi am nañ ko te mu doon yitte joo xam ne ni ma la ko waxee woon doon na loo xam ne wax dëgg yàlla taux koy def dafay doon lu bëri loo xam ne xajul ci keesu daayira bi moom mii su duggee noppam du am jàmm mukk mukk te yitte jooju saafara wu loola mën nañ cee seere lu mujj lii di caméra yi surveillance yi nga xam ne boobaak léegi liggéey bu am solo yi nga xam ne liggéey da ko ci jumaa ji kenn xamu nu mu toll te mu mu mu wax ceeg xaritam mbokkam sëriñ Ablaye Dia ñu financé ko te mu doonoon yitte ju kawe kawe am na yitte biir yu bëri yoo xam ne loo xam ne lu ñu war a dox la lu lu dayre bi su ko yëgee kemtulaay kattanam day fexe loola saafaraw loola sëriñ bi xam nañ ko suñu diggante ak moom ci daayira mu Xaadimatul Xidma ñëw gii mu ñëw nag Euh, dogu yi fi mu ne nii ubbiku na bokk yi ci bëri ñi ngi ñëw waaye moom mii dafa bokk ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ci ñii ci yàgg ñëw lañ maanaa ren ji mën nañoo wax ne ay yooni yooni yooni ñëwam la rawatina euh, ren bii mooy ñaareelu ñëwam ndax bi koor gi tëroogul ñëw na fi indi jëfi sëñ Ablaye Dia tey jii mu ñëw ànd ak ay bokkam indi jëfi boppam te at mu jot noonu la koy defe kon daal loolu kàddu la yoo xam ne kàddu yi mbégte la yoo xam ne munuñ koo ñàkk seere ci moom kaddu yi nga xam ne nag mooy kàddu yi cant yi ak ñaan yi sëñ Afi mi nga xam ne moo mooy njiitul daayira bi di kilifa liggéey bi dañ koy bàyyee mu tënk kaddu yi nga xam ne mooy kàddu yi cant yi ak ñaan yi euh, jëmale ko ci yow jëmale ko ci bokk yi nga xam ne ñoom nga àndal ñu ngi nuyu bu baax sëñ Mouhamadou Bachir ak mbokk yu baax yi nga àndal di la sant bu baax di la gërëm te di la ñaanal xamna ñun ñaan lañu gëna man ci ci di la sant ñaan lañu féetewoo yow ndax lool rek lañu manal way ñun dal ne sama am ju bax ja lepp lo yéene yalla nga ci tek sa loxo ni nga ko bëggee te jariñoo ko teeg ëllëg nii ko man si mam cheikh wax léegi li day bis bo xam ne nga and ak ñëpp téwé ko waaye li nga seq ak daayira bi te ni ñëguñ ko mo upp doole li fop fop waaw li da ci lenn rek man nañ wax ne li mu ci gën wayef ndax daayira bi ku ku bari itti la te néew ay moyenne waaye lépp dugg sa nopp ni ko ab daal waxee ak lu mu mën di doon xam nañu bu dugg sa nopp rek keroog faju na ndax doo amatoo jënd ju may mu faju kon nag loolu ñi sant bu baax te di gëm te ñaanal li ma la wax léegi ñaan lañ la mënal ñu ngi la koy defal ñaan ngi daal nga xam ne moom duñ ci tay guddi duñ tay bëccëg foo bëgg àgg daal yàlla su borom àggale ndax yemoo ci sa doolee bopp sa doolee bopp boo defoon doy na waaye da boole képp koo xam yaakaar nga yéene nga ko lu baax da nga ko xaj dugal ko ci liggéey bi ku mel ni sa mbokk suñu Ablaye Dia ak ñeneen ak ñeneen xam ne yéen nga leen jàmm yéen nga leen tawfeex ba tax li nga nekk yoon nga dox nga di leen ci ngay ñaan nga sax ci mbakke bu ba mu soob la li nga bëgg liggéey sama am lépp nga di ko ni nga ko bëggee ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal waaleykum salaam wa